salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di leen sant ginnaaw euh, bi ñu sant yàlla du ma ne pression je peux parce que maanaam Wakaam doon nañu Coupe Saint-Michel maam loolu dañ siy jàng rek pour mën a ñëwaat revenir plus fort quoi comme ni nga ko mën waxee. mais du ma ne pression la ñu am carrément mais jën nañ match bi au sérieux quoi te li ñu war a waajal yëpp pour aborder final bi waajal nañ ko pour bu soobee yàlla incha allah. waaw c'est vrai c'est vrai ah. bon débat ou équipe bi équipe bi carrément suñu team yëpp mooy match bi yëpp concentration la défense comme ak coach mi ko waxee contrôle suñu rebond parce que loolu yàgg nañ ko wax te saa suñ ko waxee suñ ko defee on le voit ça se voit quoi. ko ba match beau contre rebond c'est plus facile nga gagner ko comme ça quoi donc défense bi moom dañ si focus bu baax incha allah. et maa ngi woo supporter yëpp si fair play comme gars yi ñu ko waxee rek organisation bi tout donc euh, di ñaan yàlla match bi. Euh, aborder ces jambes et terminer ces jambes pour sauver tout ça je peux dire que dañoo huilé ça c'est vrai parce que entraînement là, rek gars yi chaque jour donc c'est normal. que la fin nous des c'est mais bon Wakam aussi comme donc du coup comme comme nous donc. voilà moo tax du ma ne ñooy dañuy ñëw rek jaasi comme ni mu yomb match la match moom dafa nar a met bu soobee yàlla incha allah ñoo ñaan yàlla yàlla may ñu si ndam bu soobee yàlla. équipe ñaari équipe yëpp équipe xale la donc euh, ce sera une belle finale incha allah incha allah.